de retour sur le plateau matinal Sénégal ñu ngi ci virage bu mujj bi ñu ànd ak Pitaw euh, Pitaw tey xew-xew bi ci lan la ak ci fan la. voilà Aïcha xew-xew bi tey dañuy dajeeg suñu benn ndaw bu ñuy wax boo xamante ne su ma nees ndaw waxuma jigéen ndaw mooy ku xale bu góor mm-hmm. bu ñuy wax Seydina Omar Thiam mi nga xamante ne moom dafa doon dem fële ci Italie ñu jàpp leen nag ci frontière fële nga xamante ne mooy Tunisie jaay leen ñi nga xamante ne ñooy waa Libye mm-hmm. ñu nekkoon fa nag nekk fa ay jafe-jafe dund fa yu yoo xamante ne ni am na sénégalais yu bëri yoo xamante na dëkk boo xamante ne stable foofu mm-hmm. kon képp ku fa xam xam na ne bu ñuy tukki bu leen jàppee foofu lañ leen di sànni jaay leen mm-hmm. man nag yaakaaroon naa jaay nit yàgg naa xeewi mais ndekete mu ngi am ba léegi ci Maghreb bi nañ dem déglu ci ki nga xam ne mooy Omar Thiam mi nga xam ne moom dund na expérience boobu yàlla dimbali na ko nag mu ñibbisi temps yi si kayiti Gambien la ñibbisee ndax benn sénégalais génn fa yeneen nationalité ñu ngi jëli seen doom mais sénégalais yi daal seen doom yaa nga foofu seli di dund jaxanama nañ dem déglu ji Omar Thiam mu dellusiwaat Aïcha parce que nekk na émission boo xamante ni wax dëgg yàlla am dindi njàqale la dindi jaaxle la dindi ku réer la ndax ñi nekk fële yaakaar nañ leen trop te am nañ ci yéen yaakaar te jàpp nañ ne suñ déggantee ak yéen seen seen seen jaaxle ak seen yaakaar dina dina mat ñu def le tout daal pour déggante ak yéen. waa ndey ñun bu ñu doon jóg ñu ngi dem Italie euh, bu ñu dem Italie ñu jàppuñu ci yoon bi bi ñu jàppee ci yoon bi nag ñu dund ay dund yoo xamante ni dëgg la jaar-jaar la dund góor la vol laa jël. waa dañ jàpp bi ñu jàppee ñu indi ñu Tunisie jox ñu naari tunisien yi. fan nga départ woon. Euh, Tunisie la embarqué pour dem Italie. Ah, ñu jàpp ñu bu ñu jàppee ci yoon bi ñu jox ñu naari yi tunisien yi yóbbu ñu ba frontière Libye ak Tunisie ñu jaay ñu foofu naar yi quoi. Ah. waaw parce que foofu euh, naar yi dañuy bàyyi ba côté une de matin ay deux heures yooyu. ñu jóg leen a génne yóbbu leen léegi bàyyi leen ci désert bi waaw lii bi jaay moo fa am. léegi na lañ leen jaayee yéen. ah ñoom bopp bu nekk comme par exemple bu fekkee ne bopp bu nekk ñoom dañ la dañoo joxe bopp bu nekk ay cinq 500 dinars wala 1000 dinars ñoom buñ la yóbboo kaso mille dinars moo la fay génnee wala 5000 dinars waaw. loolu lan lay tekki ci suñu xaalis. waaw 5000 dinars ba 6000 dinars yaa ngi fay ay 600000 700000 doo ko génne ci kaso gi. waaw foofu amul dox. mais gaal ngeen moo lay jéggil diggante boobu soriwul ay une heure de ngay daw ngay yegg Tunisie Italie ay une heure de ngay daw bu la yàlla dimbalee ngay yegg mais li gën a doy waar parce que yàlla bindul benn jaam pour moromu ji yàlla bindul bépp jullit pour moromu jullitam mu di ko def lu bon parce que yonent bi nee na jullit warut a ŋàññi moromu jullitam jullit warut a tooñ moromu jullitam jullit warul def lu bon moromu jullitam kon tey bu fekkee ne ñoom nekk nañ ay jullit ñu jàpp seen mbokk jullit di ko def lu métti loolu du lu rafet daal du lu rafet ci ki bokk moom du ko rafet ki bokkul ak moom donc ku ko gisit même buñ la ko defut du la neex surtout nag nga ànd ak say mbokk sénégalais ñi yeew leen ci benn place di leen def lu méttee méttee méttee. waaw parce que yeew la. parce que nit boo ko jëlee dugal ko ci kaso boo xamante ni yàlla moom a tiim billaay wallaay taalaay ñun suñ bëggee julli dafa am benn benn kii benn benn seng bi dafa am benn bën bën bu ndaw bën bën boobu su amee fu mu tappe ci miir bi dañu xam ne heure julli jot na ci foofu daal la ñuy calculer heure julli su wàccee ñu ne ah julli 5 heures jot na suñ ko gisul ñu ne julli timis jot na suñ jullee timis même pas ay une heure de temps deux temps dañuy julli gee tëdd kon loolu noot la vraiment yeew la not la te naaru libyen yi naar amul xol ah man boog li ma gis waaw naar amul xol parce que jigéen jur la kasu jigéen ñi dafa métti libi billaahi xam naa ko mënuma leen tudd xam naa ñoo xam ne sax Kër Masaar lañ dëkk barki salaatul fatiha maa ngi gën ci Mawlana Cheikh Ibrahima xam naa leen mais nag du ma doo mun di tudd seeni tur wala ngeen ne doo diw affaire yooyu quoi comprendre nga mais xam naa leen te ba pare naari xam nga dañ lay palpe dañuy palpe góor ñi dañuy palpe jigéen ñi bu ñu palpe jigéen barki salaatul faati doo leen xool ñoom bu ñuy palpe jigéen yow doo yow sa sa bët du la may ngay xool jigéen gi ni ñu koy palpe parce que dinañ dugal seen loxo fu nekk ba pare simmi la sa kanam sax dañ ci dugal sa loxo di ko di ko vérifier jigéen bu fekkee ne dafa am noo mel da ngay ànd ak sa jabar ñu jël sa jabar dugal ko ci biir néeg bi di ko utiliser yow jëkkër ji nga toog di jooy. eh laay sañoo wax parce que boo waxee wala boo réagiré la la fay fekk xam nga ko dañ lay rey waaw. waa xam nga tey naar mun na la yóbbu liggéey mu liggéey loolu ba liggéey bi pare mu bañ laa fay. nga xeex ak moom mu ray la wala mu gaañ la am na bërki démb kese ñoom envoyé nañ ma ko kiñ ko def it xam naa ko comprendre nga jeex na mun nga yor téléphone di Pape Malick teg ma bàyyi sa nawle laa li ñuy wax si suuf ñu doon wax si kaw baax na daal dem jékki-jékki dama jël Pape Malick ngi noonu mu nekk ay ndaw sénégalais yoo xam ne dañu nekk fële ca bitim réew ah. di fa dund nag ay jafe-jafe yoo xamante ne yu doy waar loolu la Omar Thiam mi nga xamante ne moom ñibbisi na neneen bi muy ñibbisi dama ko laaj nan def ba ñëw xam naa tey 13h30 incha allah intégralité dina jàll mm-hmm. mu gën a leer si boppu nit ñi mu ne moom dafa mujj nekk ku mu nekkandool si kaso bi kooku nekk Gambien bi ñu koy ñëw di ko jël si moom tam dafa déclaré kooku comme rakkam la ay kayitu Gambien lañ ko mujj yónnee pour mën a ñibbisi te yaakaar naa dëkk bu toll ne Sénégal fu Gambie mën a yebale seen ay ndaw seen avion jël leen euh, dëkk bu mu mënti doon dem jël leen ba mu def sénégalais kon suñu njiit yi nañ leen nañ ñu dimbali rek suñu ndaw ya fa nekk nga xamante ne ñoom li tax leen woon a jukk waaye dañoo mujj dugg si kàmb koo xam ne mën ñu faa génn hmm. ñu jàppale hmm. li nga xamante ne sénégalais ñu ngi moom la PETA wax euh, c'est vraiment déplorable xam nga tey jii bu ñuy xool ci plan bi Gambie ak Sénégal kenn dootul laa tam seen i euh, seeni i seen i seen i puissance wala seen i seen am doole pour mën a jëli seen i seen i doom bu ko demee bu ñu demee ba Gambie mën koo def ma masawum ak Sénégal donc je veux dire que euh, suñu njiitu réew mi wala suñu gouverneur yi nañu bàyyi xel bu baax a baax ndaw yi bu ñu demee ba gàddaay rek dafa am li tax donc bu ko amee ci réew mi rek dañuy hmm, toog bu ñu xasee ba gàddaay nag am fa ay jafe-jafe nañu am fulla ak jom bi tax ñu dem jëli seen doom teg ci condition yu baax hmm, ah boo tukkee moom il faut nga jaar si yoon yi nga xamante ne moo gën sûr si avion euh, mais di dem si Libye yi nga xamante ne voilà dernière fois maa ko doon wax euh, su Libye su Soudan à côté la nekk Soudan Soudan c'est un pays en guerre mm. euh, Tchad aussi c'est ñaari dëkk nga xamante nit yi dañuy daw foofu di dugg biir Libye ah, nga xamante ne amul presque amul gouvernement amul dara mm. ñaari gouvernement ñoo ñoo fa nekk donc loolu c'est c'est c'est risqué et mm. ay milices la partout je sais moo xam nit yi dinañ informer jaar ci désert bi pour pour dem wala euh, mais lu lu gën a am solo daal mooy conscientiser jeunes yi ñu toog fii Sénégal parce que bon pour man c'est la solution quoi ouais, c'est la seule solution Keina alors man je pense que euh, genre affaire humaine nii dañ koy indi di ko indiwaat di ko dund di ko dundaat je pense que sénégalais si boppam ñoo war a yeewu xam ne carrément euh, dëkk jàmbur boo fay dem te awoo ci voie bu légale bi complication nga indi sa bopp coono àddina nga indi sa bopp mais aussi ay métit nga indi sa bopp ndax am na ñoo xam ne dañuy dem ba ci yoon bi surtout ñuy aw ci yoonu suuf si dañuy gaañu dañ leen di rey wala ñu dox ba mënatuñu wala ñu amatuñu lu ñu lekk ñiy dugg ci gaal bi aussi mm. euh, di lab ci géej bi donc euh, loolu aussi da ngeen koy bàyyi xel mais dafa mel ni saa yu ñu sensibiliser rek ñoom saa yoo jour boobu la ñuy gën a mën a pour tukki euh, te ñu bàyyi xel ne carrément góor baax na jigéen baax na mais liggéey yu ndaw ndawaan yi ñuy xeeb ci suñu dëkk di ko dem voilà y a pas de di ko dem di defi ci beneen dëkku jàmb boo leen ko defoon fii amaana li ngeen fay li ngeen koy am seen dëkk doo leen ko am feneen en tout cas nday euh, man loolu laa amoon li may wax ci élément bi et ngeen bàyyi xel bu baax a baax ne carrément am nañ président bu bees peut-être changement dina am voilà ngeen bàyyi dem ci dëkku jàmbur yi état mu bàyyi la nga tëj foofu rapidement. lu si mën ci am daal Aïcha euh, comme ni ñu koy faral di waxee masta fajul boobu waaye seet na ko. li am am naa pare peut-être ñoom bi ñuy dem. kon masta bi dañu jëloon gaal dañu jëloon euh, avion pour dem itali mais jàpp nañ leen ci yoon bi bu ñu demee ba foofu euh, di traversé ñu jàpp leen donc nañ leen ñaanal dimbali rek comme ça suñu autorités yi suñu gouvernants yi man leen dimbali mhm. jëli ñi nga xam ndax ku nekk fële dem ba yuuxu wallu leen kon leen dimbali jëli leen ndax ñu jël seen i doom ñu ngi leen di mhm. massaw baax a baax incha allah intégralité bi na daw 13h30 fee ngeen seetaan ko waa Omar Thiam moom nga xamante ne la mu dund sa li bi ci ëpp sax tegaguñ ko mu nekk lu doy waar lool lool di la jaajëfal Aïcha. Mm-hmm. rendez-vous bu soobee yàlla mardi euh, vendredi. deuxième part ñu ñëwaat di jaajëfal Kër Petaaw tey moo génn ci habillement bi accessoire yi tenue beeg yëpp ku ko bëgg rek boo contacté waa Kër Petaaw xale yaa ngi liggéey nag waaw noonu la même na dañoo jàngal liggéey ñu ñëpp tabaarkàlla fekkoon nañu ci mais daf koy yokku ndax ku yokkul yaa wàññi na jàmmam yàgg donc di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig bi ba demain demain c'est mercredi ñu daal di ñëwaat ci euh, góorgóorlu mm-hmm. Aïcha tey da ngeen dalaloon ay chauffeur lu suba bi ma indi waaw taxi maa ngi laa indi ñu wax lu leen métti doy nañu waa trop tamit ñoom. <laughs> merci Keïna. doña Aïcha de plus ñu leen dalal ak jàmm ci Allô Sénégal donc mu ngi noonu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk yi. merci beaucoup Aïcha merci à Keïna merci à Ndeye merci à. Pape voilà merci à nos fidèles téléspectateurs di leen jox dig daje rek vendredi incha allah ak benn rubrique. incha allah merci beaucoup Pape. man je pense à demain à 10h pour le flash. pour le flash d'information. alors merci à toute l'équipe euh, matinale jaajëfal leen bu baax a baax merci à Babacar. Allô Paris il est joignable au 77 546 15 46 à 11h vous aurez Sister Maria dans la mi-journée l'avant-première Pape sera là à 10h pour vraiment euh, jox leen li nga xamante moo di le flash formation merci Weuz ak ki nga xamante moo di Mouhamed jox leen dig daje ba altine incha allah altine waaw man loolu <laughs> jëlee sa vacance bi ma jël sa vacance. <laughs> jël na vacance ah, day altine laa joxe rendez-vous ba altine. Ah, ma ah, si. dama toog nga <laughs> nekk si congé <laughs>